Sénégal dafa signé ay contrat jël si li coow lu bare nag kilifa yi wax nañu ni dañu wuru war a ubbi enquête du bàyyi kenn xam ne du bàyyi kenn du bàyyi dara lu mën a tax sénégalais yi xam dëgg yi ci mbir dossier bi laa jël laa woo chefu dig ne ko na ubbi enquête ci mbir moomu le sant naa ko aussi ne ko enquête boobu nag na ci déglu képp ku ñëw bëgg ñu déglu la bu mu ci xeeb kenn bu mu ci xeeb benn document bu mu ci xeeb benn témoin képp ku ñëw daal bëgg ci indi ay leeral bu neex yàlla dina la déglu bu ko defee danañu rendre compte te saa buñ ci waree jokkuwaat ak yéen dinañ ci jokkoo ci kaw loolu tam saisir naa section recherche bu gendarmerie ndax fan yi am na benn rapport bu wax rapport inspection générale d'État rapport bi mi ngi circulé mi ngi genn nit ñi diko jang ta mi ngi ci internet bi rapport bobu ñu ni kilifa yi ko wara jot jotuñu ko foofu sax duma fi tardé ndax même su fekkon kilifa yi jot nañ ko rapport bobu kenn war ko genn fek déclassifier waxna chef section recherche mu def ci enquête ma ngi wo képp koo xam ni xam nga dara ci mbir mi moo xam loo ci xam la moo xam document boo ci yor la moo xam information boo ci dégg la nga dem ci chef de la DIC ak ay enquêteurs am dinañ la déglu parce que li ñu bëgg lépp te kilifa yi bëgg ko te yéen Sénégalais yi aussi ngeen bëgg ko mooy mbir mi leer. chef de la DIC wax nañ ko ni enquête boobu nag comme moom ni mu ko mënee ndax ku ci xereñ la amul ko muy bàyyi. amul lu muy bàyyi lépp lu mën a jariñ enquête bi dina ko ci indi kon nag ñu ngi leen xamal ni ñi nga xam ne dañ ci am ay xam-xam yu xereñ loolu daal nga xam bi su nekk ñu ngi ciy waxtaan ci télé yi ak yooyu tey dañu xam ne enquête bi dig lañ koy defee te du ci internet lay leere digg lay leere du ci télévision lay leere digg lay leere kon nañu dem tey moom képp koo xam ne mën nga nodd jàkk jaa ngi ne dig la nekk demal nga nodd contribuer à l'émanation de la vérité. J'avais à cœur de prouver absolument que nous ne parlions pas dans le vent et que nous détenions. C'est ça, c'est ça, oui. Il y Moi, je ne porte pas Mais on aucun On euh, ne j'aime Euh, ay inspecteur recevoir la ma ni leen man de dama ñëw wuyu si euh, sàkku teefu procureur euh, pour koo xam ne am na lu wér ci dossier Petite Ville ñoom indi ko di pour leeral enquête moo tax ma indi leen sama sac bi ak li ci ne pour jébbal leen ko ngeen ngeen mu gën a leer ci leen dossier mu ne enquêteurs yi ni ma procureur de jébbalaguñu dossier saisiraguñu kon ñoom kenn saisiru leen sax nekkate pour ñu benn dossier d'enquête ci affaire wu xam nga loolu ñu ko bëgg a sax teg ci n'importe quel loxo parce que lu ñuy nëbb la donc ñoom jotuñu dara donc amul dossier kon nekkate procureur ba muy wax dossier sax amul te loolu vraiment ñàkk